sëñ sa baay. waaw ah, sama baay di ko sëñ Abdoulaye eh, ay yoon muy muy ñëw ci sëriñ di ko jàmbat. mooy eh, juróom bi mu nelawee ñu suul ko Ndakaaru. mu mhm. ko jàmbat sëñ Abdoulaye ay yoon benn bi sëñ sëñ bi wax ko sëñ bi sëñ bi ne ko mu ne ko mbàkki. mu ko ñaaree mën a am ma wax la ko. fàtte ko wala ma yaakaar ne wax naa la ko. Mhm. waaye ngañ mu ne ko mbàkki mu ne ko bi ma la fii ba ba léegi sa baay na ma fii ay yoon ne ko sa baay nga ci armeel sëñ Tuubaa yi. alhamdulilah mu dañoo xeer rek. foofu taalibe faatoo ñee nañ ko yóbbu Touba waaye fu taali bi faatoo fu mu mën na fu nekk ak lu mu sori sori ñu ko suul saa buñ ko noppee gis mhm. jël nañ jëlee nañ ko foofee indi ko ci armée li sëñ Touba yii armée li yi itam ku ñu fi indi te waruñu la fee indi ñi lay suul saa buñ noppee teg bët jëlee nañ am na fu ñu lay <laughs> ay malaayika ngi fii ngañ mu ne ko mbàkke ko yoo xam ne yaar yooyu képp ay seen liggéey ku ñu fa suul te ko fi yóbbu ko feneen ak ku suul feneen tam bokk fii ñi jële ko fa indi ko fii ne ko àgg na ci ne ko boo koy nettaleet ngañ neel man mii maa la ko wax